dalal mais je ah, parce que euh, suñu dynamique depuis depuis trois matchs nous avons vraiment ascendance su équipe progression Nous avons vraiment des résultat positifs. positif euh, effectivement nous avons un briefing pour accès euh, que équipe la mérité confiance et que bu ñu leen jëlee aussi war ñu seetaan équipe bi mu nekk ci suuf et que loolu ci ñoom lay dépendre donc pour équipe bi dem ci milieu tableau wala ci ci ci zone bi mu nekk donc ci ñoom ci loolu waroon dépendre moo tax tey résultat bi dafa amoon solo trop trop trop moo tax tey xale yi dégg nañ leen wax ñaax nañ leen parce que li ñu am tay ren équipe bu bess très tak la ay xalé aussi bari ci trop trop trop à commencement bi dina metti mais heureusement pour nous, nous ñu ngi progressé Nous avons ñu ngi xam affaire parce que au début nous avons problème impact physique bi duñu xam exactement l'intensité. le intensité match bi ils étaient plus ci match ay national de voire sax division régionale mais là ils comprennent qu'à ce niveau là ça va plus vite ça court plus assez et intensité course c'est ça c'est soko soko soo ne tu peux pas jouer à ce niveau là heureusement que nous ñu comprendre loolu motax euh, instant bi ñu ngi am yaakaar bu ndaw ndaw. voilà effectivement euh, suñu xoolee match yi ni ñu tegaloowee nii euh, production vraiment am nañu yaakaar ne match référence la bu xamné war nañu permettre ñu ñu ñu ñu de meilleurs résultats que que que ñetti première match lors des premières sorties quoi inshallah allah. waaw waaw suma ma su suñu démarrage ñun ñetti équipe yépp parce que ñoo doon dajé fi ci stade bi. Euh, on a très très mal démarré le championnat pour une équipe professionnelle waruñu démarrer, démarré donc ça ne pardonne pas fait euh, équipe de di génn hivernal fekk 10 jours 11 jours et là ça pardonne pas à ce niveau là nous avons fait erreur Nous équipe ont commis pratiquement la même erreur moi mu fait ni mais yaakaar avons mais aussi joueurs yi euh, adapté wu ci ci 4 matchs dans leurs 5 matchs ils vont retrouver le rythme du championnat je pense bien que l'équipe de Waouh, waouh, des fois quatrième des fois troisième Il y a troisième journée là journée la mais cinquième journée donc. Euh, euh, du tegtal du tegtal chaque fois dafa am luy <laughs> sa bu ko dugal foofu waay bul dugal analyse bi foofu donc euh, euh, je pense que démarrage bi c'est dû à des problèmes administratifs yi ñu amoon avec les partenaires qui nous a un petit peu retardé tey loolu ren la loo gën indi suñu suñu démarrage bu bon et que mënoo démarrer démarrage bu bon au niveau du recrutement et tout ba pare bëgg a ñëw def résultat tout de suite loolu loolu luxus la quoi le football amul luxus donc moo tax au plan comptable ñu am ay difficultés au début mais am nañ yaakaar ne dynamique bi dina continuer pour euh, pour que Demba Diop euh, retrouve au moins euh, place bi nga xam ne lañ souhaité mooy milieu de tableau bi quoi parce que mooy suñu objectif ren incha non trouble fait on l'espère même pas ñun dal, li ñu wax xale yi mooy douzième ou bien onzième sax buñ buñ ko jëlee fin championnat mooy Demba Diop maintenir na ñu mayee tànn biir bu baax koñ ba su ko pour pour pour yéeg loolu nekk suñu bopp sax ñun xam nañ équipe bu mën a ak équipe bu mënta yéeg ñun daal on se concentre suñu objectif bi nga xam ne lañ ñu assigné mooy ay xale lañ leen yebal ay xale lañ leen jox yebal leen ci biir ay mag ci biir équipe yu taxaw yu am doole am ay moyens donc sasuñu leen dara lu dul ngeen fexe ba équipe bi na jël onzième